fanweer ak ñett bésub teggi ba salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci leenu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu gisoon nanu ni na doon fexe bëreek yàlla aji sax ji dogaloon na goreel bànni Israël ñi nekkoon ay jaam ca misira wante buuru misira moom dogaloon na tëye leen ni ay jaamam waaye nen du bëreek doj noonu gisoon nanu ni yàlla wàcce ci misira juróom ñeenti musiba yu metti lool jaarale ko ci loxoy musa ak aaruna wante kéemaan yeeg firnde yeeg yooyu yépp taxul woon firawna déglu waxu yàlla ba bàyyi bànni israel ñu génn réewam tey ji nag danu fas yéene jëm kanam ba gis ni yàlla indee woon ci na meneen musiba di fukkeel bi ngir mu bàyyi bànni israel ñu génn misira ci njàng mi weesu déggoon nanu ni na gannaaw juróom ñeenteelu musiba ma ni mu waxe woon musa ak aarona naan génn leen fi bu leen fi feeñati bés bu ma leen fi gisatee keroog dingeen dee léegi nag nanu jàng ci saar fukk ak benn ba dégg ni yàlla moom ci boppam tontoo firawna jaarale ko ci gémmiñu musa mbind mi nee na noona nag musa wax firaw na ci làmmiñu aji sax ji bu xaaju guddee man ci sama bopp dina jaar ci biir misira te lépp luy taaw ci réewu misira dina dee di ko tàmbalee ci taawu na mi toog ci jalbi ba ci taawu jaam bu jigéen biy wol ak taawi jur gépp bu ko defee dina jib ci misira yuux gu mag gu fi mësula am te dootu fi am mukk waaye ci bànnig israel gépp xaj sax du ci baw nit mbaa mala ngir ngeen xam ne aji sax ji dafay ràññetle waa misira ak bànni israel noonu sa dag yépp dinañu ñëw su jootal ma naan génnal fii yow ak ñi la topp ñépp gannaaw loolu nag dina génn ci kaw loolu muusa daldi jóge ci jataayu firawna mer ba fut noonu gis nanu ni yàlla façon yéenee wàcce ci réewu misra musiba mu yées yeneen musiba yi ko daloon yépp ba fii yàlla dogaloon na deewu bépp taaw ci réewu misra musiba mu metti lool la waroon a doon waaye lu naroon a xew ak taawi bani israel yi ndax dañu waroon a deewandoo ak yu waa misra yi ci lu wóor yeeyowuñu rëcc àtteb yàlla ndaxte ñoom itam ay bàkkaarkat lañu woon ni waa misra yépp waaye yàlla mi bari yërmande rabatoon na pexe ngir yiir bànni israel ci musiba moomu nanu jëm kanam ci saar fukk ak ñaar ba déggli yàlla waxoon musa ngir bànni israel def ko ndax seeni taaw mën a rëcc ci dee mbind mi neena noonu aji sax ji musa ak aarona wax leen ak mbooloom israel mépp ne leen ci fukkeelu fan ci weer wi ci kër gu nekk na boroom kër ga tànn am mbote nangeen tànn mbote wala fu menn at mu amul sikk ngeen yeew leen ba ci fukkeelu fan ba ak ñeent ci weer wi mbooloom israel mépp reyandoo leen ci tàkkusaan nañu fab ci deret ji diw ko ci kër gi ñu ko lekke maanaam ci ñaari jëñi buntu kër ga ak ci njaal bunt ba guddi googu dinañu lakk yàpp wa lekk ko boole ko ak xob yu wex ak mburu mu amul lawiir ci kër gi ñu togge rekk lañu koy lekke bu ñu génnee ñam wi ci biti bu kenn damm yax yi te nii ngeen koy lekke dangeen di laxasu ba dëgër sol seeni dàll ŋàbb seeni yet te ngeen lekk ko bu gaaw mooy màggalu bésu teggi ba ngir aji sax ji ndaxte dinaa jaar ci réewu misira ca guddi googa fàdd taawi misira yépp muy nit muy jur te dina daaneel yàllay misira yépp man maay aji sax ji deret ji dina nekk xàmmekaay ngir yéen ci kër yi ngeen nekk bu ma gisee deret ji dina leen teggi te musiba du leen dal saa su fàdd réewu misra mépp nanu taxaw fi tuuti ndax gis ngeen man pexe la yàlla tëraloon ngir musal taawi israel ci de te jot bani israel yépp ci seen buumi njaam ca misra pexe mu doy waar la woon pexe moo xam ne ci xalaatu nit yëfi dof la yàlla dogaloon na jot leen ak deretu mbote ma deret ja jóge ci mbote mu amul sikk deret ja ñu taqal ci seeni buntu kër deretu mbote ma rekk a mënoona a musal seeni taaw ci dee gannaaw ba yàlla jeexalee waxam ak muusa ak aarona ñu daldi dem dajale magi israel yépp jottali leen kàddu yi leen yàlla waxoon ci lu jëm ci saraxu mbote ma magi israel nag ba ñu déggee ni yàlla aji sax ji dogale musal leen ci musiba deewuk taaw yi ñu daldi sujjóot di ko màggal bi amee nag mag ñi ak bànni israel yépp daldi dem def li aji sax ji digaloon muusa noonu mbind mi na ca xaaju guddi nag aji sax ji fàdd taw yépp ci réewu misra dale ko ci taawu firawna mi toog ci jal bi ba ci taawu ki ñu tëj ci kaso ak taawi jur gépp firawna daldi jóg ca guddi moo ki dagam ak waa misra yuux yi bari nañu ci misra lool te amul genn kër gu neew tëddul ndax dégg ngeen li xewoon ca guddi gu metti googa ndax yàlla àtte na réew misra ni mu ko digge woon aha ca xaaju guddi malaakam yàqkat ma daldi jaar ci biir réew misra fàdd taaw yépp dale ko ci taawu firawna buur bi ba ci taawu ki ñu tëj kaso ca guddi googa jooy ya ak yuuxu gu rëy daldi jëp ci misira ndax amul genn këru waa misira gu néew tëddul waaye lu xewoon ci këri bànni israel ndax yàlla musaloon na seeni taaw ci dee googu lu koy tere yàlla mi mënula dellu gannaaw digoon na leen ne su ma gisee deret ji dinaa leen teggi te bànni israel ñoom taqaloon nañu deretu mbote ma ci seen bunti kër ni ko yàlla digle kon nag amul woon kenn ku dee ci seeni taaw waaye ci këri waa misira képp kuy taaw dee woon na te bokkuñu woon ci yoonu mucc wi yàlla tëral maanaam yoonu deretu mbote ma noonu mbind mi nee na ca guddi ga firawna woolu musa ak aarona ne leen jógleen te génn sama xeet yéen ak bànni israel dem jaamu ji aji sax ji ni ngeen ko waxe te it ngeen ñaanal ma ma barkel bi loolu amee waa misira soññ bànni israel ñu gaaw génn réew ma ndaxte ñu nga naan nun ñépp dinañu dee noonu gis nanu firawna mi amatul woon men pexe ni mu bàyyee bànni israel ñu génn réewam gisoon nanu ba noppi firawna ca njaal benn ga ni mu waxe woon musa ak Aaron naan kan mooy aji sax ji ba dégg waxam di bàyyi israel xamuma aji sax ji te it duma bàyyi israel mu dem wante léegi firawna ak waa misira gépp amatuñu woon meneen pexe mu dul ràññee ne yàllay ibrahima isaaxa ak israel mooy yàlla aji kàttan ji nen du bëreek doj te kenn munula bëre ak yàlla aji kàttan ji di ca jële ndam naka noonu ci guddi googu la bànni israel gàddaay misira te génn ak alal ju bare mbind mi nee doomi israel def nañu laleen leen musa digal laaj nañu waa misra jëfandikukaay xaalis ak yu wurus ak i malaan aji sax ji nooyal xoli waa misra ba ñu jox mbooloo ma li ñuy laaj noonu lañu yóbboo alali waa misra diirub li bànni israel toog misra tollu na ci ñeenti téeméeri at ak fanweer loolu lépp xewoon na ngir amal li yàlla digoon ibrahima bu yàgg kon nag ci gàttal loolu mooy nettali bi ñuy woowe bésu teggi ba ci lu wóor nettali bii dafa mel ni géej gu yaatu te xóot te fees dell ak njariñ ci biir am na lu bare bare lu nu ci mën a wax wante tey ji amunu jotu faram fànce lépp li nettali bii ëmb waaye am na ci genn dëgg gu am maanaa lool gu nu war a denc ci sunu xol mooy li yàlla digoon bànni israel bi mu naan bu ma gisee deret ji dinaa leen teggi lu taxoon taawi bànni israel deewandoo wuñu ak yu waa misira deewuñu woon ndaxte yàlla ubbil na leen yoonu mucc jaarale ko ci deretu mbote ma yoon wi leen yàlla tëralaloon ngir taaw yi rëcc ci de moo doon lii bépp taaw bu nekk ci kër gu buntu ba taq deretu mbote ma dina dund waaye bépp taaw bu nekk ci kër gu taqul ci deret ja dina dee su so, amoon benn waxaan mbaane ci biir taawi bani israel bu laajoon baayam naan baay lu tax mbota mi tooñul kenn wara dee kon baayam dina ko tontoo nii sama doom xam nga ne yàlla dogal na deewuk taaw bu nekk ci réew mi sunuy bàkkaar a tax nun ñépp yelloo dee waaye yàlla mi bare yërmande dafa nuy wax it ne sunu rendee mbote mu amul sikk taqal deret ji ci sunu buntu kër musiba bi dunu dal mbote mi dafa wara dee ndaxte peyug bàkkaar mooy dee yàlla ku jub la te mënula tegg sunuy bàkkaar ci noonu rekk faw mbote mi wuutu la dinanu ko rendi ci sa palaas ni sunu maam Ibrahima rende woon xar ma ci palaasu doomam sunu yàlla ku jub la te ñàkk caaxaan kàddoom ci nun leer na nàññ su ma gisee deret ji dinaa leen teggi la waxoon léegi nag mbokk yi li nu war a ràññee tey mooy ci kanamu yàlla doomi aadama yépp mel ni taawe waa misira ak israel yoonu yàlla wu sel dafa nu teg dee ak jaar ci àtteb yàlla nun ñépp loolu la mbind mi wax ne ñépp a yem fa kanam yàlla ñépp a bàkkaar ba joteetuñu ndamu yàlla peyug bàkkaar mooy dee ak alku ba faw fu sore yàlla ak ndamam lu rëy lan lanu war a def ba mucc nag nan la yàlla mën a musale bàkkaarkat yi ci seen peyug bàkkaar te ba tey dëkk ci njubtem mënuñu ci sore tey waaye li nu war xam mooy lii mbote yi bànni israel rendi woon ngir rëcc ci musiba deewu taaw yi dafa doon misaal ramukatu àddina bi waroon a ñëw tuur deretam ngir fey boru bàkkaaru doomu aadama yépp ci mbirum ramukat boobu mbind mi neena moom ci boppam deena benn yoon ba faaw ngir dindi bàkkaar yi moom mi jub ngir ñi jubadi mel ni mbote mi ñuy rendi jébbal ko yàlla ca bésu teggi ba noonu gis nanu ne deretu mbote ji israel takkaloon ci seeni buntu kër ngir musal seeni taw ci dee misal la misal la woon ci deret ji musalkatu àddina si naroon a tuur ci kaw bant ba ngir képp ku ko gëm mën ci mbugalu yàlla gudul jeex gi yow nag ndax xam nga li yonent yàlla yi bind ci mbirum deretu ramukat bi moom moo tuur deretam ngir yàlla mën ci teggi say bàkkaar yépp te ba tey ci njubteem ndax gëm nga li ñu bind ci lu jëm ci deret ji la mën a musal ci mbugalu safara te may la cër ci jataayu yàlla ba faw ca bés penc ba ndax àtteb yàlla dina la teggi walla dina dal ci sa kaw ni mu dale woon ci kaw waa misira mbokk yi sunu jot wéy na wante ni ngi leen di gërëm ci déglu bi ci émission bi di ñëw bu soobee yàlla dina nu jëm kanam ci nettalib yonent yàlla muusa ak bànni israel ba gis ni leen yàlla ubbile aw yoon ci biir géej gi waaye su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 saint louis yoonu njub bp 370 saint louis kon nag yàlla na leen yàlla barkeel te leeral leen ci xóotaayu li mu digoon bànn israel bi mu leen di wax naan suma gisee deret ji dinaa leen teggi